imaginer un Youssou Ndour toog toog ja ja jàkkaarloog Aïssatou Diop Fall ne ko deman chaque jour ma ko te ñi ñi may dégg xam nañ ko chaque jour ma ni Youssou Ndour man tey dafa naa je suis man de tout le group fi ñu fi nekk si emploi yi fi nekk. Mhm. dafa naa ni benn démission dong lay xaar muy bi Aïssatou Diop Fall man moom nduuree ni nduur nduur yi fii laa toog di ko wax fi Barthélémy Dias toogee fi xas ñu. man fii laa toog Sénégal dama dégg ma ni ndóor ndóor yi Youssou Ndour laa wax et sa famille mi may fay weer tey lii tax lan may xaru tabaski néew-néew bu gën a neex ci moom mooy Aïssatou Diop Fall ñëw jox ko démission na ko démissionné naa waaye xam nga loolu doo ko am boobu bànneex du ma ko def démissionné naa ci rédaction bi yëfa xale dootu ma démissionné damay xaar dàq ma donc parce que tout simplement mais je dérange Youssou Ndour am na ñi mais bokk nañ fa leen saf pourquoi ñoom ñu bokk fa leen neex Youssou Ndour amul droit bokk fa ka saf pourquoi léegi est bokk fa la saf dafa tax yow ña ngay jël di leen fay weer ñu ñëw fii am seen futti bopp ak seen courage bopp seen koom ñu jël leen parce que dañoo am compétence ñu ñëw fi def di def comme liggéey ñëpp Sénégal yeneen seetaan est que ñun Youssou Ndour li mu bokk ba mu bokkee fekk ma ci boole fii ku fi bokk fekk fekk ma ci ma ci di wax si ko fekkee fekk ñun bala ñoo défendre Youssou Ndour xanaa bu dee Youssou Ndour rek Youssou Ndour bala moo taxaw di di naa ñu taggalee Macky Sall mm-hmm. xas leen Sonko xanaa bu ñu taggaleen fekkee ci boole fii koo mos a gis mu invité kenn Bougane Gueye dañ ne gëm sa bopp bee Bougane boo ko invité si benn sit sit bu ñàkk fay dama ko invité sax mu yenn émission ba teg ko ci ci ci télé gëm sa bopp bu bu Bougane Bougane saa bu def euh, euh, lële nu mu tudd di caravane ak yooyu mu ñu ne ko màkk ci télé débat bu ñu def si seen TV majeure partie bi ñu invité waa gëm sa bopp fii Futurs Médias ku mës a gis rek ñu invité fi kenn ku nekk si euh, fekk na ci boole kan moo ko sañ fekk na ci boole tajul fenn ku leen di invité kon Macky moo naan waa Futurs Médias invité leen tagg leen Macky Sall xas leen Sonko mën leen jël leen fekk na ci boole ñàkkul fayda gi ko su bu mës a gis kan moo ko mës a gis donc xam nga di ndax sénégalais yi weesul nga toog jàkkaarloog fii ne leen Youssou Ndour rappelle wu Youssou Ndour soit un bonhomme waaxul parce que moom nga jënd ko yéen a bokk seen ànd politique mais boo bëggee ñoom mbubbu loolu moo tax bàttali muy jaas ba mu osé toog fii mooy li ma wax ma yàgg wax Sénégal mais mhm. lu ñu yàqal xam nga lan la guerrierisme dama am fit maa audacieux ndax audacieux ak am fit weesuwul nga ñëw toog ba ci groupe fit bi ma jaay di wut bës di jaay ma fit naan waaw fii laa koy waxee wii naa nga moo tax mbaj ak carte fayu lañu toll dañoo toll ci réew carte fayu nga baaw ko faal moo ñu utiliser dëgg la rëy na foor na waaye li Barthélémy Dias dama foor def moo gën a foor ndax Barthélémy bu doon dafa toog wal faj bi saaga futur ma jaar kenn du ko tontu boo tontu bu demee noonu waaye waax ñu ndax ñu ba ñu invité nga ñëw toog fii ci plateau ba en direct heure de très grande nga toog da xaswaatee la ba ak gor ya fa ne mais yeneen gor jàqaalo yo wala ne li nga mën ñoo la ko dàq ndax kaata fayu foofu la réew mu toll fii ko la kaata nga yen ko immeuble doo ko yen birig immeuble nga yen yen ko moo tax Babacar Fall yan batta li muy jaas immeuble ma jàppale ko ndax daa baat dafa am chance waaye gis nga baat kii Babacar Fall Fall dama ko woo ma ko Fall tooñ nga ma mu ne ma ah dana ko no tooñ ñoo nag Fall da ngaa waroon a teg noppi ma ndax man su ma ñëwoon dinaa ne Bart dama koy yan gratte ciel laa koy dooleel xam nga kii daf koy yan immeuble man dama yenu gratte ciel laa yenu dool ko ko léegi nag loolu li xew pourquoi léegi ñii ñu yuuxu xam nga ñuy yuuxu mooy chaque jour la répétition elle est pédagogique chaque jour man ma toog fii awma ci ma répété mais man bokk naa ci journaliste yi nga xamante ni nii au moins résisté nañu fii maa ngi ko toog man fii si journaliste qualifié waxuma nag espèce soi-disant journaliste yi de mais journaliste qualifié ndax nag <laughs> ñaaw naa pataa naa foor naa waaye nag ah fii bopp bi kabe sax len ah di argument diplôme yor naa ko ñii di wax ñii ko Futurs Médias seen rêve seen mbir xol ci nekk mooy ñëw Futurs Médias koo ci invité mu daaw daw naaw ñëw bàtte mi benn sit mënu ko invité benn télé du ko invité fi lay waxee fii fii la mburum di xoyam xoyamee donc man maay première journaliste bu toog fii di wax lii Sonko pendant que toute la presse était couchée. Mhm. may rabâché fii à lo euh, rabâché di fii à longueur d'antenne ne journalistes yi yeewu leen. Mhm. yéen a ngi a ngi yàq seen métier te politiciens yi jaruñu ko muy Sonko di Macky Sall. Mhm. jaruñu ko. parce que ku ci fal gën a Sonko mii déjà déjà.